salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar leen joxaat seen wàccuwaay bu wér a fi jàmm yàgg mu yam bu baax a baax di xam ngeen man xam naa yàlla suñu borom suturaa leen ba ngeen dellu si waat suñun ndax da ngeen bokk suñun di bëggee waat ñëpp rek di ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay démb dafa am fu ñu demoon seeti champion bu mag muy Thialy tey ñu ñëw fii Pikine fekk fi champion bu ñuy wax Boy Maroon Boy Maroon nuyu naa la. waaw auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw ma sant yàlla ji julli seen bi di sant sama ñaari waajur maa ngi lay fay Idi maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa Pikine di nuyu waa Cité Sotiba di nuyu sama gars yi fi assisté yëpp rawatina Kabila àll Papa Dieng ak Ala Dieng maa ngi nuyu waa Pikine yëpp di ziaraat Baye Fall yëpp. Baye Atex Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Baye Atex Mbacke na fi yàgg te wér Baye Atex Mbacke yàlla na njabootu Baye Atex bu baax a baax ñëpp maa ngi bàyyi ma kenn maa ngi Ibrahima Mbacke Mame Fallou Mbacke sëñ Baara Mbacke ñëpp ba maa ngi nuyu njabootu Baye bi yëpp daal dinuy nuyu waa Pikine Cité Sotiba bii ngeen ñu fekk si waaw. booy mënoon jël combat am ki nga xam ne ñëpp moom lañ fa bàyyi ñëpp xam ne xamewul jànjak joor ileer gumba la loxo yi raw nga jël ko waaw bëgg la xotteeku rek man moom ko xam booy mënoo xam ko ci lu xotteeku quoi waaw loolu laa bëgg nag combat bu metti comme moom tamit li ko dal moom dal quoi parce que tamit manqué naa adversaire boobu ba léegi mënu ma am kon bu fi desee rek dañ koy jël quoi faxas ko jàll ci leneen quoi. booy Modou bi nga jël challenge bi xanaa laajoo say mbokk. <laughs> wala moom moo laajul ay mbokam. non yow la mu mën ci xeex rek. waaw fi kooku dégg lu mu lu mu baatare ñu kub ko te lu mu kub ñu baatare ko. billaay walaay taalaay du kook waay kooku taxul ñuy wax idi challenge day xaar day xaar. le 22 janvier day xaar de. xaar la nekk rek ah, baax na bismillah ba le 22 janvier wax ji moom jaratul muy bëri comme nee nañ dañoo bëri moom wax lañ toll. nañ jëf nag le 22 janvier dina xam ne lépp dëgg la. moom kay. moom booy maroon <laughs> dina xam ne xale bu laqale bi la ko sekkal de xale pikin bi. te li mu nee na seen toolu maam bi nga xam ne puusoo leen si paasoo leen seen seen maam seen toolu maam. lépp lu ci lépp lu mu ci yor nag bu soobaa da koy delloo le 22 janvier suñ toolu maam boobu muy wax. Ah. le 22 janvier lay delloowaat lépp kooku dafa comprendre sax kooku dañ ko linjaatee siwul kooku dañ ko jaay parcelle bu mu dëkk jëriñu fa dara parcelle xamuñu kuy calambeer. ba la 22 am waay waay jamonoy 1900 bàyyi ma ko jamonoy 1900 instant ñu ngi ci 2000 kooku kaar bi bàyyi na ko fi waay ko instant yi instant yi moom ñu ngi ci jamono jamono instant yi 2000 yi jamono 1900 yi moom taxatul ñuy wax moom. démb nga dégg mu ne booy mu doon wax ci li bari bari. Hmm. bari bu xam ne lépp dëgg la. Idi man yëpp ma samay supporters. paa boo xamante ne wax dëgg fa yàlla bi mu dalee bëre bëreegu ma. nee na yaa waaw bu nekkul man paa la ci man parce que man ci 2000 yi laa dugg ci làmb moom mu ngi dugg nag ci ay 1900 kon man kooku paa la ci man. 1900 waaw 1900 la kay yow jamonoy RTS Calembe da nga dugg internet bi di xool ay combat benn combat da nga ciy gis moo capitaine à part boobu ban combat ngay gisaat booy mënoon boo tapee booy mënoon nga gis ay combat am yëpp. mu ranger simple beeg arène bi yëpp foo tapee booy mënoon gis booy mënoon ma saf ci sàpp kon 1900 mënu maa jaaxal moom. nee na combat bi nii nii nii nii li nga mëne da lay fekk si nee na du xeex ak yow day ñëw pour bëre ak yow. pour jàngal la bëre. non loolu ay soob la rek loolu ay soob la rek loolu day wax rek ay jàngal ma bëre yow suivre nga li simple ma ciy def kon moom bu ne damay jàngal bëre moom mënul nekk te loolu ay bataille psychologique lay indi noonu rek moom xam na ne sañul taxaw ak booy mënoon bëre ak moom. ndax sañul taxaw ak booy mënoon bëre ak moom. ñu wure wurewaat <laughs> day daw bàyyi de. nee na da ngeen di bëre cinq minutes taxaw samp jaaga cinq minutes. man man man man yow ma samay supporter bay samp jaaga ay samp jaaga moom sekkuma ko ak moom eh, tollooguma fu may sampee jaaga ci làmb ku ma sampal jaaga xamal ne sama adversaire moo taxawul waaye képp ku taxaw même pas 30 secondes ma defal la borom SAT yi la 30 eh, secondes yi. a foofu da nga bëgg yi laa la wax de du ko weesu ay du ma xeex ak moom du bëre moom na dëggal boppam rek man du ma reculer benn yoon. kon combat bi séntu nañ ci booy mën a ñëw samp jaaga. samp jaaga non non du ma samp jaaga. kon li mu kon moom li mu wax dafa mel ni dëgg la nee nga doo xeex. damay xeex damay bëre. man sama kaaw ñoo ëpp sama samay top presque. say kaaw. ñoo ëpp samay top 5 daanaka moom ba teg gémmiñ waaye loxo taful gémmiñ ku ma daan loxo dafa taf gémmiñ. ñu daan ñëpp loxo daa daf gémmiñ. loolu jamono jooju ak jamono ji du benn. waaw pourquoi ko jamono jooju ak jamono ji mel ni moom da nga kaa yóbbu année 60. lamb ji léegi xale yi la faral xale yi la soxla soxlaatul paa yooyu instant ñu ngi ñu ngi ci 2000 yi instant man man li may wax ci li may wax ci lamb ji chaque jour mooy maa moom du lamb. nee na moom du nee na moom du la. 91 man du ma wax samay at waaye li ma li li ma màggee sax dafa bëri 91 allahu akbar <laughs> gars yi tantu leen loolu. 2000 2000 <laughs> dafa mel ni ñàkk nawloo Thialamber. non la nawloo naa ko sax nawloo naa ko de waaye wax dëgg fa la damaa xam li nekk ci man rek li nekk ci Boy Maroon képp ku compétiteur ci lu simple mënoo kaa xam mais ku di xaar combat moom bàyyi mënoo feree ne Boy Maroon. nee na bu ñu dajale woon 100 kilos yi nekk ci lu simple yëpp nga leen di daan. Mm. nee bu jour ba moom moo lay ki lay daan. moom day wax xalaatam rek fooy gis kuy wax di xuleeku rek xamal ni tàppet la kooku boo koy booy ëf bët yi rek bët yi commencé jooy kooku tàppet bu mag la di wax di xulleeku naan may la ma wax ak booy moroon fii ñun Pikine ko Dakar ku ñu ku ñu xam ku ñu xam xam ne booy moroon dafa am fit. waaw ah, fayul nee na day xulleeku bu samay mag samay mag laay daan sama génération amagul ci ba ji boo amee tamit new na fi kon nag buy xulleekoo ak yooyu noonu loolu tàppet moo koy def. di xuleeku booy mënoon mi sëgg nii bandi géew laa bandi cerveau la le 22 janvier ngay xam ni bandi géew laa bandi cerveau la dinaa la li njaa yow eh. ah, la li ba jéggi loola dex bi te moytul moytu moytul lab nag ndax xam naa boo mënul fay di nga lab kon kon fas yéene waaye ah, eh, eh. bi te bu bu dof dof loo lab kii ba le 22 janvier le 22 janvier lay xam ne lépp dëgg la man damay wax di ñàkk waxatuma la entraînement moom dem doon wax di ñàkk de dem moom daa wax di ñàkk fan kooku di xob sotteekoo ndox nga naan lay wax di ñàkk kooku na bàyyi po yi muy naan jël po yeeg lex yi di funki funki lu noonu le 22 janvier dina wëndeelu ba xam ne mbër la ko seekal wëndeelu bu daf dof loolu dinaa jargandoo ak moom fii ba parcelle moom moom nee na day bëgg ngay def muy dindi muy def ngay dindi kooku su ma defee ñaar yoon mu dindi man man man ma dem ñibbi kon sama kosu na jug bàyyi ma fa kooku benn kele bu wóor pare na ci man dafa mel damaa seetlu ne booy mënoon li tool di bari bari bari dafa bëgg a def làmb ji benn song. mun na nekk benn song mais man ci li ma jàpp mooy bés bu ma jugee bés bu ma jugee mu taxaw xaar ma fa su boobaa balaa mooy comprendre ñibbi parcelle. nee na ñi ngay daan simple amul ku ko ci gën a diis amul. ku ko ci gën a diis non bu waxee loolu amul ñi may daan simple moom am na ñu ko gën a diis bëri na sax bëri na trop te bëri door ak bëri simple du benn ñi may daan simple au moins dama ciy sonn. Eh, kon la bëgg a foofu. bii mooy gën a yomb ci samay combat bu soobee. kon su ma déggee sax bëre dóor moo gën a yomb bëre simple. fuuf bëre dóor bëre simple moo gën a yomb bëre bëre dóor moo gën a yomb bëre simple fuuf. mooy waroon dafa mel ni yow fi ñu toll nii nag yaa ngi commencé tuutal calembeer quoi. du tuutal parce que kiy dem fi ñu toll calembeer li ngay wax ki ki kiy tegle deux jours di compétir ay plus de soixante mbër ngay bëre ak ñoom kon benn tàkkusaan mu warul laa mën a jaaxal te lamb ji lu mu gën a diire sama lamb la lu mu gën a gaaw sama lamb la loo koy yóbbante. li ma koy yóbbante xam na ko na xam ni daal li ma koy wax chaque jour xale la ko seekal. démb da laa napp de waa ah, man du ma nappante non du ma napp <laughs> nappante du moom. du ma nappanteeg moom xam nga moom. Ah. du ma ak moom. li may wax du moom ci làmb du ma moom ci benn côté su ma waxee loolu xam nga lu mu fa demee. Hmm. mooy Boy Maodo dafa nekk mbar boo xamante ne tey Pikine dañ ko yaakaar Pikine daa am fu ñu ma teg te waa Pikine dañ may gunge. tey boo ñëwee ci koñ bi rek loolu war na laa mën a woon ne ñii commencé nañoo respecté làmb ji combat bi bi ma xaar bi dafa yàgg xaar bi dafa yàgg trop parce que mbër yu ndaw yu nekk Pikine yëpp ba ci mbër yu mag yi peut-être que li ma ci daj ci combat bi nii gëm naa ñi ko ci daj bëriwul parce que toogaay bi ma toog bu dul woon compétition bi sax day gën a métti ci man mais dama toog di xaar di muñ di ci dégg lu nekk tamit di muñaaleeg loolu kon nag nekkul ca la mbër moom mooy ñuy téye le 22 janvier comme nag bu nekkee fii di wax damaa bëri ak yeneen ak yeneen loolu moom lañ koy bàyyil wax ji moom lañ koy bàyyil ñun jëf moo ñu war te le 22 janvier dañuy jëf. 22 janvier. dañuy jëf bu soobee yàlla. billaay walaay. promoteur bi tëgg combat muy Jax. Mm-hmm. Jax moom kontaan ci moom rek wax dëgg faa la kontaan ci moom bu baax a baax a baax Jax moom mooy doog a tëgal nii. mooy doog a tëgal nii waaye tamit gis naa ci moom benn jikko joo xamante ne wax dëgg yàlla dëgg fa yàlla nit ku baax moo koy def quoi parce que cachet bi augmenté na ko. macha allah te tamit combat bi sonn na ci parce que pour mu tëgal booy moroon jaraloon na ko lu nekk mbër bu mu seeti nga bañ mbër bu mu seeti nga bañ te terewul wul bu ko neexoon ne ah booy moroon de dafa naqare wutal adversaire dama koy bàyyi mais daf daf ñoo topp di ñu di ñu lijjantil ba lii sotti tey kon dañ koy santaat bu baax a baax a baax mu gën ñoo jàppale man làmb ji dama jàpp ne amul mbëru lit simple amul mbëru lit avec frappe loolu amul ci làmb bu ñu nee mbër nga rek da nga war a complet compétent nga war a doon chaque jour da nga war ñëw ci làmb ji ci waxam démb nag ca dama koy gën a yóbbantewaat ci waxam démb mu naan moom moom ma gën déglu moom dama la koy yóbbantewaat comme yaa ko seeti woon yow yaa ko seeti woon moom dafa toog ne moom moo ma gën a jàng ah moom moo ma gën a set ñun ñoo ko gën tilim fuuf parce que ay taalibe lañ ñun soxlaa guñu set bu ñu demee ba tey couronne bi nag bu ñu neexee ñu doog a set mais saa soxlawuñu set dañuy tilim chaque jour ñun soxlawuñu set man ñi may àndal bu ñu setee sax man dama leen di bàyyi soxla wu ñu set dañuy tilim chaque jour moom nag na jël boppam naan day set seetloog loolu ñun lamb undu la ñuy dañuy dañoo unde ñun dégg lu ma la wax de. bu jeexee nag jeex na bu ah ordre làmb ordre làmb foofu moom waaw c'est le boulot quoi mais instant ci làmb lañ nekk dañuy làmb moom saf-saf le 22 janvier maa ngi lay digal nag nga waaj bu baax ne nga làmb ji dalaa jaral nag yow mi nga xam ne paa kon man xale lan la ma war a def. yow mi nga ne paa nga yow nga ne làmb ji da laa jëral kon man nan laa war a def man sama jëm bopp man lépp lu ma yor ci làmb ji nii comme ne nga bii mooy sa buntu làmb mi man bii nekkagul sama buntu làmb bi sa loolu làmb la yow moom nee na bii mooy buntu làmb bii nekkagul sama buntu làmb sama buntu làmb bu ñu ci yegg nañ xam ne lii sama buntu làmb la moom buntam dafa yéex a tëjeeku yow bëréwoo bëréwoo ba heure bi naan ay bii mooy sa buntu làmb ci xale bu ndaw kii <laughs> nañ bàyyi ba le 22 janvier sax waaw loolu moom jaratul sax ñu ciy wax parce que boo ñëwee ci koñ bi rek gis booy niñ def rek nga xam ne instant yi gars yi pare nañ Pikine ñëpp noppi nañ boo gisee bâche yeeg ñëpp ak gars yi nañu mobiliser gars bés bi ñii dañuy toog buñ sañoon tey tey combat bi nekk dimanche bi di ñëw ndax man moom pare naa bu yàgg xalaat bi ni bi nga indi woon sa diggante ak bu ko raw bu ko raw bu ko raw day am ndax ba dégg fa yàlla instant yi ni moom mobilisation bi dafa gën a yokk wàllum gars yi fi nekk fan sa club beeg ah ak yeneen ma yi Pikine ñëpp a jóg fas yéene jóg jàppale Boy Maron ci combat nii te Pikine dañuy sot Pikine dañuy sot lu tax Pikine dañuy sot mooy bëgguñu mbër bu bëri wax ñun ñu mbër bu bëri wax parce que ñun bëriwuñu wax jëf jëf lañ a bëri ko wax. Pikine parcelle waaw te Pikine parcelle bi nag instant nii lii dafa ne dër man maa moom du dër ñi ma soxla suñ jugee ci Calamber duñ jóg a xam fan mooy dër bi. kon kon Pikine parcelle la. Pikine Parcelles kon classico. ñoo ko bëgg a def classico sax. non foofu instant yii nii déggoo Iran la duñ fa mës génn Iran Irak la de bu kii rek ñu kenn indi keneen ba ba ñuy jot ci kiñ soxla. kenn si sa man dépassé naa kooku man maa xool ci ñeneen. ñi ma ñi ma soxla buñ génnee ci combat bi nañ ko xam. Ah. waaw fii ba couronne bi ñëpp si Pikine rek couronne bi bu ñëpp see Pikine nag suñu jaan wàcc na quoi. looy tàggatoo. waa sa 100% li waa di woo ñëpp nag lamb ji nag maa ngi ciy woo ñëpp képp kuy bëgg booy ma doon képp kuy fang su booy ma doon maa ngi la woo ci làmb ji di woo waa Ndimaak bi ma dëkk waa fiisal Mbadaan waa Ndoomut maa ngi leen di woo ci làmb ji bu baax a baax a baax waa Seras maa ngi leen di woo ma kenn suma ma limee damay juum maa ngi woo waa Fatick waa Mbadaxun Gandiaye ah maa ngi leen di woo di woo waa Mbassis Log su ma limee damay juum waa Saaraar waa mbuur baa leen ma leen duma leen fàtte ci làmb ji. maa ngi woo sama maaraay yëpp képp koo xamante ne yaa ngi ñaanal booy moroon maa ngi lay ci làmb ji te wax ni waa ji dafa bëri wax làmb ji lépp lu ngeen ci mën def def leen ko ci di ko waxaat njaga aan xaw ma pël nga laak xaw ma loo laak man séeréer laa doomu séeréer laa. wax naa ay mbokkam man damay woo samay mbokk ñëpp képp kuy doomu séeréer booy mu doon mu ngi lay woo may xooyaanun mi a bii nun may xooyaanun nu ngar ndamit ten a bii nun combat nekk le 22 janvier nu ngar ndamtaam mi fa calamber aneen njaga aan nu ndamtaam nun nun fop diggante kiin koy fo kalamoyom tukloro comme tukloro koy maxey xeɗa nu nu ngar ndam taam fo sereer o kon tukloro jegero jom in jegu jom comme in jegu jom koy jege jom ma jeg tu jom tukloro andero jom comme andero and naye nako ane fatana to mana ngay ko ino jomo kay ndimelo kam jom ndimelo fa naak sereer ka gaya an jom fopo foqatu na jom o nanangan wax fa yala muso nan te tukloro ke weg jom mosee jeg Usa Usa Usa Musa wek Usa ka wek njom mi nana wek njom te refa ka ando ka wek njom buub a wek njom xaw kaga ref eh, wek njom Malal i Malal Ndiaye sax xaga wa accepter i na Malal Ndiaye ano tara fat nu maye tene te sereer we sank inu jege njom kon ma xoya fop fog fiisel fog ndimaag joyin fop xajima leŋ mbasis look képp o andoona yee koo béggaa Boy Maroon rek Boy Maroon o xo béggang le 22 janvier gardam tin xaɗanin waaw di béggaa sama gars yi fi nekk yëpp di woo nag ASC yëpp ASC yi nekk Pikine yëpp maa ngi leen di woo ñëw jàppale Boy Maroon rawatina waa Curuba waa Bopp Coor waa Ras Sees ba Sika Góogi ah waa Enjey Angar bàyyi ma kenn waaw ñëpp Bopp Coor bi bàyyi ma kenn daal képp kuy bëgg Boy Maroon waa Israël bàyyi ma kenn ah, daal nga ne na ñëpp ñëw bàyyi ma kenn képp kuy bëggee Boy Marone moo Boy Marone mu ngi lay bëggee di woowaat waa Pout da baax ah mafia bi lépp lu ñu mobilisé dayul ah waa fii seen mbaadaan bi lépp lu ñu mobilisé dayul cité Sotiba bi lépp lu ñu mobilisé dayul mbuur lépp lu ñu mobilisé tamit dayul di woowaat ñëpp waa seeraas bi moom xam naa ne combat bi moom Jackson na kontaan bu soobee yàlla ñoo kontaan bu baax a parce que gis naa seen taxawaay ci làmb ji te làmb ji seegul kuy def nag te yegg kon bu yegg see xamul lan la war a mën a def sant kon man maa ngi sant bu baax di santaat sama gaay yi nga xam ne ñu ngi sonn ak ci man guddeeg bëccëg boobu ba léegi ñu ngi ci sonn bu baax a baax a baax a baax boo yi ndaw yi gis nga man maa ngi mbëru xale yi presque saa yu ma xewlee ñoom ñëpp dañuy teew te maa ngi ñoom ñooy foondoo it dóor dàqee lépp te ñoom ñoo ma ko woon waaw kon nag di ñaanaat yàlla yàlla may ma dem ci combat bi bu baax a baax a baax parce que man moom lépp lu may ñaan ci combat bi moom mooy ndam parce que bëgguma ci loo xamante ne tey day métti waa ndax ndam boobu ñoom ñoo ma ko ji parce que man ma di nelaw saa yu ma tëddee di nelaw ñoom yee na ñu mbër demal entraînement comme mooy sa métier nekk ci kon dama ciy nekk chaque jour di santaat yéen ñi ngi bu baax a baax a baax xam ne daf jàppale sama coach Gana Seras ama fayam taxawaay metti na te lépp mu ngi koy engagé ngir lan ngir ma am ndam Ous Ousmane Ndiaye maa ngi koy sant bu baax Ousmane Fall ah ñoom ñëpp ñu ngi ci dañ ciy jàpp bu baax a baax ñoom Ala Dieng dañ ciy jàpp bu baax a a baax a baax a baax gaan joofaan kooku moom na ko na ko mbëri ñëw jël na ko mbëri ñëw jël dañ ko war a ñëw jël gaan dafa nekk mbër boo xamante ne parce que mun naa ne lim bëggoon def ci lutte avec frappe sax mu mujj kaa continuer xamul tax lim mu mëne lutte avec frappe la te gars yi xamuñu ko lu gën a danger ci gaan mooy lutte avec frappe ku ko jëloon mu daan la amul mbër bu mu ci munti daan benn defet te mënul am combat boobu léegi loolu tamit dafa ñaaw dañ ko war a gën a gëstu di woo amateur lutte simple yi amateur lutte avec frappe yëpp maa leen di woo ñëw jàpp ci combat bi nii bu baax a baax. dañ maa ngi ciy woo képp maa képp koo xamante ne booy mënoon mos na laa bëgg ci lutte simple rek maa ngi lay woo le 22 janvier nga ñëw jàpp ci. di ci woo sum production Abdoulaye maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bu baax ñoom Adama Diouf ah. kaar gi waaw ñoom ñëpp maa leen di woo ñëw jàpp képp koo xamante ne amateur li simple nga maa ngi lay woo le 22 nga ñëw jàppale ma di waxaat di lancer waat nag benn appel ci waa Pikine mooy ndaw Pikine ñu ndaw Pikine yi niñ booloo ni doon benn loolu nañ ko gën a yokk parce que instant cent pour cent Pikine ak deux cent pour cent Pikine tey boo ko gisee tey mënatoo kaa xàmmee tey mooy la ñun ñëpp mbëri ndaw yi presque ñoo mën a tabax Pikine tabax boobu nag ñaanuñu yàlla kenn ñëw daaneel ko muy suñu mbëri yi fi nekk Pokola Ndiaga jóob yàlla na ko yàlla may ndam ah ñoom Feeraay Boy Niang yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi nii ah. yow yaa ngi nekk ci guddi gu boo seetlu nga ñaanalaat. waaw damay ñaanalaate damay ñaanalaate parce que parce que parce que ñooñu suñuy grand lañ. te tamit mooy loolu Ama Baldé kooku sama grand bu baax la wax dëgg faal daf may woo di ma conseillé moom sama xel bu gën a dal ci làmb ji yàlla ak moom la wallahi azim billahi wallahi taalaahi ndax xëy na am na lu mu gis ci man kon tey man maa ngi koy ñaanal tamit combat bi mu jublu yaa na ko ci yàlla may ndam bu baax baax a baax ah di woowaat ñëpp idi di woo sama waa dëkk sama waa dëkk maa ngi leen di woo ci combat bu baax muy ndimaak maa di woo fii seen mbaadaan bi yëpp ah ndombu ci kanam bi maa leen di woo ah ñëpp ko bongoy bàyyi ma kenn daal man su ma limee damay juum ci combat bi nii gars yi nag ñoom ñoo tee làmb ji làmb ji mu ngi seen loxo dama bëggoon nga may leen deux minutes bu dee ñu mën a lancer gën a woo gars yëpp ñu ñëw <laughs> eh ñu calambeer junoom ñun ak ñoom sax biir parcelle keneen lañ fa soxla mais du moom mais mais le 22 janvier nañ baa bañ toog plateau après dinañ la koy wax le 22 janvier yi nga xam ne xaalisu làmb sa yoon neexu si barki sëñ Bamba di nga buñ paree si yow foo déggatee di nga laaj ndax moo doon la sant buñ paree moom ah. bu déggatee booy dina laaj ndax ma doon la sant bu déggatee booy dina laaj ndax ma doon la sant sa waay xal dégg loolu <laughs> buñ paree si ah. boo déggatee booy di nga laaj ba ma doon sant ñu nag moom duñ fa yàgg barki allaaji fàllu mbaax ñu nag moom duñ fa yàgg nga xam mooy da calamber bu mafia bi jógee arène nationale mafia diree ko bi raam nanga nanga ba yegg si foofu ñoo ko moom sa waay barki sëñ faalu mbaax foofu ñoo ko moom calamber du ñu nag moom calamber ñu débuté doon si làmb bàyyi nañ fi lañ ko bàyyi waaye fi sa baala ak ne daxaa raw moo daan fi sa baala fi sa baala te bii mooy gën a ñaaw nga xanaa ren ca la mbeer naka. dégg siyaar Idi. naka mu. nice. na. waaw wàccaay bi waaw boobu ba léegi nag ñu ngi ci quoi nekk ci liggéey bi rek. di gën a waat waa Pikine ñu ñëw jàppale seen doom seen rek seen xarit yoo xam ne nag dañ doon am lu ñu doon wut doon ci liggéey mais yàlla dogal na ne sotti na grâce à Jax production. di man mobilisation bi laay wax ñu ñëw jàppale promoteur. loolu promoteur bëgg na loolu. waaw dafa jàppale seen doom parce que seen doom ñu bëri dañ ko wan ginnaaw ndax mun naqare utal adversaire moom mu jaayante di gërëm waa mafia sept talon bi ñoom ñëpp liñ gëm mooy set talon sept talon ku daa ko bëre daa ko xeex gën a nekk xale yàlla na ko yàlla may dem ëpp mbooloo calambeer daa am lu ma koy yóbbante lenn mu mu xam ko calambeer ñi nga dugandoo ci làmb mooy ñoom fils de Balla ñooñu nga wax ci ñooñu lañ jëm du te ñooñu dañ fay jaar ni sax parce que kii surtout maam góor gi njaay la ci benn côté mooy ma limal leen bi Calamber na sant yàlla ba bi mu boxee ci lim bi waaw kii ci ma limal leen bi lay bokk billaay wallaay du ay caaxaan de di gërëm nag waa parcelle am nañ fa ay supporters boo seetaanee billahi interview bi démb premier commentaire bi waa ji parcelle la dëkk nee na ko parcelle laa dëkk mais yàlla na la booy ma daan. dinu parcelle lay Idi. Idi loolu dafa garaaw Idi. billahi dinu parcelle lay entraîné. Idi billahi bu booy ma ñëwee ci làmb ji. dinañ xam ne journée boobu noonu amu fa adversaire journée bi laa la wax amu fa adversaire billaahi journée boobu amu fa adversaire Calamber na def ndànk rek na def ndànk bu baax a baax man nag damay gën a wootewaat mobilisation bi laay gën a wax ci loolu laay insister chaque jour parce que kii li muy dugal stade ñiy des ci biti ñoo ko ëpp parce que ñi koy topp xaaj bi ñëpp mënuñoo jëndal seen bopp billet te bëgg nañ ko te xale boo ko jëndaloo billet yaa ko loo te nanguwul lenn li parce que sponsor daf ñoo wan ginnaaw di gën a woote waat nañ ñu jàppale bu baax a baax a baax kii dafa am lu nekk ci digg bopp bi lu mu fay war a teg muy couronne gisoo bopp bi ni mel mu couronne bi gisoo ko <laughs> barke sëñ Bamba mais nag yàlla na. waaw. ma ne man li ma ñu gaañ boobu. boobu couronne bi gisoo saa yi ñëw ci làmb damay indaale couronne xanaa. saa yi may ñëw dama koy indaale di nuyuwaat Pa Omar di ko santaat ci baas bi bu baax gis nañ gis nañ taxawaayam ci baas bi moo ñu may baas ak ñeneen ñoom mboor ah ñëpp sport business bi Pa Omar amuñu fayam chaque combat daf ñuy assuré base kon kooku amuñu fayam di woowaat ñëpp nag sant yàlla bu baax a baax waa si Sotiba bi nag nañ mobiliser képp kuy doomu cité bi le 22 janvier bu la fi kenn jiitu ah doomu Pikine tamit doomu Pikine ni may wax rek waa Pikine ñëpp aw ma wax dëgg fa yàlla aw ma seen sama combat fii nii bu jotee dootoo xàmmee kenn boo yëpp mooy loolu waa waa sees ba ñëpp lamb ji seen lamb la waa Chicago ñëpp kàkku boppu coor waa ñëpp waaw yaa ma gën a xam rendez-vous le 22 le maa ngi woo ñëpp ñëw jàppale booy moroon képp ku taade nag di nga taade lamb bu neex waaw ñëpp lamb ja dina neex te kenn du ñu jiitu stade bu soobee yàlla ca la mber ca la mber ba le ah. allah